koom bu ma nee koom mooy xëy na euh, ñàkk xëy ci ndaw ñi ak ñàkk les les les les services sociaux de base euh, parce que aussi euh, ñu bari ñu ngi jógee seen dëkk na jàpp ne amul li ñu fa bëgg moo tax ñëw ndakaaru bu ñu fi ñëwee seen dëkkin xaw a metti loolu am ñaari conséquence bi ci mooy transport bi ak embouteillage dul jeex ñaareel bi aussi logement yi nga xam ne dafa nar a loolu président Sall am na lu ci def ay jéego mais ba tey dafa mel ne Dakar moo englobé lépp li nga xam ne moom la Sénégal waroon mais parce qu'il y bi on vous dit 72 pour ñooy ñoo ay jeunes lañu. 13 mm. millions de population par parmi eux boo xoolee ñan ñoo créé ñan ñoo nekk exode rural bi ñan ñoo nekk ci marché de l'emploi mm-hmm. informel bi ci 60 pour cent yi ci monde rural bi lañ jógee ñooñu ñoo nga xamee ne bu ñu leen bàyyi woon fi ñu nekk en renforçant l'agriculture en mettant les moyens te Sénégal am nañu chance boo xamee ne Mamadou on a un pays riche. Mm-hmm. pas par le pétrole mais on a une mine d'or xam nga boo xam ne fi ñu féetewoo ci océan Atlantique jant bi dafay taxaw chaque jour ci at yëpp. les réserves hydriques ndox mi mu ngi suuf foo toll da nga koy jot. Sénégal am na nañ chance Sénégal c'est une zone plate cultivable agriculteurs yi loolu ak sàmm yi loolu la bëgg il suffisait de renforcer l'agriculture d'augmenter le budget pourquoi pas à 15 pour cent pourquoi pas prendre ce qu'on appelle les fonds de secours yi wax. Mm-hmm. yi nga xam ne ci ay postes sénégalais lay jógee ak ci relation parce que nag dëkk boo ko yoree te nga ne amuloo relation plan mondial ci plante ko jëloon renforcer ko l'agriculture dina régler deux problèmes ou parce que comme li fi ëpp ci xale yi foofu la ñuy jógee te ci bëri agriculture familiale la ñuy def bu leen joxoon li ñu soxla ci machine ci engrais de qualité ay semences de qualité defal industrialisation xale yi dañu am xale yu bëri dañu mën a liggéey moom permettre emploi pour les jeunes permettre un second emploi et permettre également quelque chose d'extrêmement important c'est euh, un impact sur la santé donc je veux dire quoi bu ñu bëggee yooyu parce que bay rek te développe autosuffisance alimentaire ay souveraineté alimentaire du ñu dem fenn. Euh, la exactement dépendance bi ñu dund ba tey la. wala lan parce que dañuy imposer des lois au plan mondial. parce que pour ñun dañoo nekk ci buumu jàmm boo xam ne dañuy imposer des choses chaque jour nga mhm. chaque jour nga dégg telle décision jël na ko au niveau supérieur nous on applique mais am na loo xamee ne ñu ni neen la bu ñu xamee ne diw xam na nu mu demee te ëpp ñu ma xam ëpp ñu ñu xam-xam mais mënuñu fixer ay mënuñu imposer ay lois mhm. parce que très souvent nit ki li nga xamul moo la ëmp te ñoom ñeneen ñi jàpp ne comme xamuloo ñu bëgg la jaay xam-xam et cetera et c'est dans tous les secteurs. Mm-hmm. donc suñu bëggee eggi loolu bu la pour que ñu am souveraineté il faut qu'on prenne la responsabilité pour ñu leen Sénégalais ñu jël suñu décision yoo xam ne fii la pour que kenn doolu imposer dara. Mm-hmm. c'est de deuxièmement pour que ñooñu ñuy imposer ba ñu imposer les produits importés bi nga xamee ne moo moo daf ñuy poser un problème de santé parce que xam nga ne la plupart des produits que nous muy naan bi li ñuy naan mu ñu li ñuy lekk pour mu mën fee yàgg y a des conservateurs comme yow médecin nga di ci mën a la plupart mm-hmm. des conservateurs sont des produits toxiques et cancérigènes. boo seetloo cancer même Sénégal bu njëkk dañ kaan dégg rek mais léegi. donc c'est tellement fréquent. parce que li ñuy importer moo baaxul. te kenn surveiller ko dañoo wàcc suñu ànd mm-hmm. donc ko de façon logique ñàkkul ne mënuñoo bañ am jël jël lépp mais am na loo xam ne soxla wuñ ko. te mun mm-hmm. nañ ko fa defar Mamadou.

parce que boobaa xale yi du liggéey parce que li ci bari ci agriculture bi boo koy réglé boobaa également wér-gu-yaram bi day poser problème wax nga ko moo tax cancer bi day bari. tension bari na diabète bari na amul kër gooy dugg tey te maladie yu amu fi ci nit ñi. Ah.